Maître euh, Pape Sène nga jiite comité sénégalais des droits de l'homme euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi lay fay bu baax. Euh, gannaaw nag bañ la nuyoo maître ñu gis ne Amnesty International dal dina génne rapport bu yàggul wax ci rapport bi li nga xam ne mooy situation wala ak ak yelleef doomu aadama ci àdduna wérngel képp tey jii noo ko jàngatee en tant que défenseur des droits humains déjà. waaw d'abord comme ni ñu ko gisee rek juróom-benn fan ci gis nañ ne que Amnesty International euh, génn na benn rapport boo xam ne nii rapport bi dafa concerné ay réewu adduna bi. Mhm. donc téeméer euh, cent quarante neuf pays euh, la concerné. boo ñëwee ci fi ñu nekkee ñun ci Afrique subsaharienne maanaam ci Afrique ci partie subsaharienne bi trente cinq pays ñoom maanaam trente cinq pays maanaam fanweer fanweer ak juróom. ci ay réew ñoom ñoom la rapport bi concerné te fanweer ak juróom yooyu euh, Sénégal bokk na ci. Mhm. mais li li nga xam ne mooy particularité rapport bi mooy dañuy rapport bu nga xam ne que ni dafa dañ ko dañ ko def ci période boo xam ne que ni période bi mbas mi période mbas mi la. Mhm. te mbas mi gis nañ ne bi yëpp la la la la la la lëmbe woon donc mais li nga ci nemmeeku également te rapport bi génne ko effectivement mooy mbas moomu dafa am njeexital. ci àq ak yelleef doomu aadama. Mhm. comme li mu ko amee njeexital ci wàllu économie ci wàllu social ak ci yeneen fànn yi ak wàllu santé parce que loolu la ñuy wax impact négatif de la pandémie mhm. ci secteur yëpp mais rapport bi li mu génne également ci wàllu pandémie boobu mooy gis nañ ne que ñi nga xam ne ñoom la gën a sonal ci seen àq ak seen yelleef doomu aadama mooy mooy mag ñi personnes âgées yi mooy également jigéen ñi loolu defe naa ne même ñun fii ci Sénégal am nañ ci ay données par rapport au cas de violence basée sur le genre. Mm-hmm. mais également mooy ñi nga xam ne dañuy liggéey bitim réew ñi jóge seen réew dem di liggéeyi feneen mooy les travailleurs migrants ak liggéeykat yi nekk ci seen biir réew ak ñi nga xam ne ay dawlaaku lañu moo naan maanaam réfugiés yi ñooñu la gën a impacté loolu vraiment rapport bi génne na ko te gis nañ ne effectivement pandémie bi impacté na daal euh, ak ak yelleef doomu aadama ci at bi yëpp. Mm-hmm. beneen mooy rapport bi dafa càmbar réew. réew yi ci réew mu nekk dafa jël càmbar ko. Mhm. Euh, bon Sénégal bokk ci ci maanaam ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent yooyu ma la wax ne moom la moom la moom la rapport bi concerné. Mhm. benn bu nekk dafay dem xool ci ci ci ci ci yenn droit yi maanaam di ko càmbar xool yan lan la fa nemmeeku ci ay sooxe sooxe parce que rapport bi aussi fu ñu xam ne loolu lay gën a mettre en exergue. sooxe sooxe yi nga xam ne li sooxe ci yenn euh, droit yi ci ci ci yenn réew yi suñu réew na gis nañ ne rapport bi euh, tudd na yu bari mais yenn rek lañ ci mën a jukki mooy maanaam li nga xam ne mooy wàllu liberté d'expression et de réunion kooku rapport bi fësal na ko condition de détention détenus également rapport bi fësal na ko affaire LGBT maanaam borom ñaari tur yi ñi ñuy woy góor jigéen ñi également na ko ak ak yelleefu xale yi également rapport bi fësal na ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni mu ngi ci Mhm. donc loolu daal la ñu mun a wax ne mooy rapport bi nga xam ne Amnesty def na ko te ñuy fàttali ne at bu jot rapport boobu Amnesty daf ko génne ci àdduna bu weesoo pàcc bi nga xam ne laal na ko ci suñu réew ñu wax ci li nga xam ne moom la gis ci Sahel maanaam rapport bi lim laal ci dans le Sahel euh, gis nañ ne am na ay exécution ay attaques contre des civils ay inégalités ay répression mel ndax yow it euh, dëggal nga ko en tant que défenseur des droits de l'homme waaw foofu li ñu mën a wax mooy dafa am ñaari concours de circonstances yu daje. Hmm. Euh, ci Sahel bi. parce que bu leen umpale ne Sahel bi bu weesoo pandémie Covid 19 bi. Hmm. dafa di zone boo xam ne que nii dafa am conflit. conflit bu yàgg sax conflit bu meurtrier boo xam ne nii ay doomu aadama dañ cay loru guddeeg ba ci suba ak ngoon. Hmm. defe naa ne loolu moom ñun ñëpp nemmeeku nañ ko ci donc loolu déjà jafe-jafe la. te conflit boobu effectivement dafay ànd ak ay xeetu. violation de droits de l'homme xeetu yoo xam ne ni dañuy salfaañi ak ak yelleef doomu aadama dañuy gis nit ñi ñuy faat dañuy gis nit ñi ñuy torturer dañuy gis ay civils yi ñuy rey effectivement parce que ay attaque à mais armée dafay am donc xeetu violation de droit de l'homme yu nekk ñu ngi ko loolu conflit boobu moo ko indi conflit armé mhm. beneen bi ci ñëw teel dolleeku nag ci deux mille vingt bi mooy mbas mi donc mbas mi également dafa ñëw dolliku ci loolu kon mu mel ni tey euh, mën nañu njort ne bu fekkee ne que euh, conflit bi ci boppam dafa indi ay jafe-jafe mhm. ñu ñëwaat mbas mi ñëw dolleeku ci te ñu xam ne mbas mi également dafa am njeexital ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama effectivement loolu dafay gën a sooxeel àq ak yelleef doomu aadama ci zone Sahel bi. mais ñoom ne nañu mbas mi dafa doon prétexte ñoom nee nañu mbas mi prétexte la ngir ñu gën a mën néewal lii di àq ak yelleef doomu aadama. waaw man nag du ma ko jàppee noonu du ma ko analyser ne que mbas mi prétexte la man damay jàpp ne mbas mi dafa bokk ci contexte bi. dafa ñëw bokk ci contexte bi mbas mi contexte lay doon boo xam ne que nii xëy comme ni conflit armé bi justifié yenn xeetu violation yi mm. contexte boobu mooy tax ñu ñuy nemmeeku xeetu violation de droit de l'homme yooyu loolu contexte bi man laa koy tudde mais du ko tudde prétexte bi daal ñu wax ci euh, li jëm ci euh, Sénégal nee nañu euh, gis nañ ne ca Casamance mbir yi taxoon na mu gën a yëngu gis nañ ne tamit ay forces de l'ordre jàpp nañu ay nit ci ay manifestation buntu xatal leen bu ñu sukkandikoo ba tey ci Amnesty ay nit ñàkk ci seen bakkan gis nañ ne liberté d'expression bi Euh, dañ koo néewal li tamit di réunion yi ndax li ni mel ànd nga ceeg ñoom. Ah, waaw euh, bu dee ci Sénégal moom euh, comme niñ ko defee ci yeneen réew yi d'ailleurs mais ñun ci Sénégal la ñu mën a wax dañuy wax ne effectivement boo jëlee lu mel ni que la liberté d'expression rapport bi nga xam ak de réunion rapport bi nga xam ne am Amnesty génne na ko dafa am ay cas yu muy fësal. Euh, ñetti cas yoo xam ne ni gis nañ ne que rapport bi joxe na ko ay exemple muy le cas de Assane Diouf muy également le cas du journal Les Échos bi nga xam ne euh, dañu noon ay ay ay ay ñoom ñoo ko saccagé parce que tout simplement seen leader dañu waxoon ne que am na coronavirus mm-hmm. euh, Assane Diouf ci ay propos yoo xam ne que nii ay propos yu tegginewut lañ ko jàppe woon beneen bi mooy Adja Ndiaye bi nga xam ne Euh, bon caméraman la je pense Dakar ak ci te ñu noonu ay policiers ñoo ko agressé donc yooyu cas la ñu fësal pour mun a illustrer ne que mm. euh, liberté d'expression am na jafe-jafe Sénégal mais damay wax ne. Mm. liberté d'expression réalité la Sénégal c'est-à-dire que même su fekkee am na cas yi loolu du tere ñun ñu jàpp ne liberté d'expression c'est une réalité au Sénégal loolu nag. d' abord il faut ñu wax ne que euh, presque boo xoolee charte yi ci àdduna yi nga xam ne dañuy jëmmal liberté d' expression dalee ko ci déclaration universelle des droits de l'homme ba charte africaine bi nga xam ne ci suñu réew la nekk jaarale ko ci pacte international relatif aux droits civils et mm-hmm. yooyu yëpp tey Sénégal daf ko daf ko daf ko daf ko def ci constitution boo ñëwee ci suñu préambule de la constitution da nga ko ciy gis mu jëmmalaat ko ci kon loolu dafay jëmmal liberté d' te ñooñu dañu jëmmal liberté d' expression beneen bi mooy suñu constitution constitution ci préambule bi comme ni ma la ko waxee bu weesoo préambule bi article huit article neuf ak article dix mm-hmm. da ngay xool ne article yooyu yëpp dañuy wax li nga xam ne mooy les libertés fondamentales te liberté fondamentale yooyu la liberté d'expression ak de réunion ci la bokk mm-hmm. suñu constitution wax ne que dañ ko war a jëmmal protéger ko mais dafa am ci anam yoo xam ne nit moom lañ ko war a defee te loolu loi moom mooy fixer conditions yi loolu mm-hmm. defe naa ne mooy le sens de l'article alinéa deux article huit de la constitution bi ñu ñëw également liberté liberté d' expression boobu mm-hmm. ay ay ci état bi di ay jéego lu ñuy wax le nouveau code de la presse nouveau code de la presse bi nga xam ne tey xëy na dina gën a renforcer li nga xam ne ko mooy la liberté d' expression dans notre pays euh, defe naa ne ak euh, décret d' application bi nga xam ne bu yàggul dara je pense si je ne me trompe génne nañ ko donc kon liberté d' réalité waaye damay liberté d'expression dafa am ci ñett principe yu muy yu muy wéew muy wéeru hmm. loolu également il faut ñu fàttali ko benn bu njëkk bi mooy dañu ne nit ki am na sañ-sañu euh, maanaam am ay am am am maanaam opinion hmm. te kenn du ko kenn du ko bund xataal te kenn du ko du ko bund xataal moom mu am opinion sañ-sañam ne kat man lii laa gëm beneen beneen principe bi mooy nit ki mun na dem wuti wala mu jot ay information kenn ku nekk sañ ngaa wuti ay information walla nga jot ay information hmm. moom lañ naan le droit de rechercher et de recevoir des informations ba mu jëbi mooy euh, ñu ne nit ki am na sañ-sañu communiquer euh, ci na mu ko na mu ko xalaatee hmm. ak bépp moyen boo xam ne ni jàpp na ne war na ko mun a utiliser moo xam réseaux sociaux la moo xam télé la moo xam rajo la donc loolu ay principe waaye ci côté principe yooyu dafa am également lu ñuy wax ay restrictions cest yooyu décrété wuñ ko instruments juridiques internationaux yi nga xam ne moom moom moom moom moom moom mooy euh, encadrer la liberté d'expression ci àdduna bi ci réew yi di ci sukkandiku. Mm-hmm. dafa dafa ma te ma cité la ko léegi déclaration yeeg pacte yeeg yooyu ñoom dafa am également ay dispositions express yu jël pour wax ne kat liberté d'expression am na fu mu commencé waaye dafa am fu mu yem. Hmm. donc loolu defe naa ne nañu ko bàyyi ba même jurisprudence bi également maanaam juge ci seen àtte bu ñuy àtte également ñoom it dañuy limiter la liberté d'expression loolu ñu ngi ko tënk ci ñaar. Hmm. benn bi mooy dañu ne liberté d'expression tey mënul dem ba ci sooxel respect. Euh, war ma nit mais tey maître bu ñu demee maître tey bu ñu demee euh, ba naan euh, li nekk ci net bi maanaam ci réseaux sociaux yi dañ ko war a réguler tey jii mbaa loolu du nasaxal tamit liberté d'expression bi. non déedéet moom laa lay wax ni la du ko nasaxal parce que instrument juridique international yi yu nationaux yi nga xam ne. Hmm. moom mooy poser principe yi tax ñu war a jëmmal liberté d'expression moo poser également ay restrictions. pour que liberté d'expression bañ a nekk loo xam ne ni day jéggi dayoo. Mm. moom laa la doon expliquer léegi. kon réseaux sociaux yi nouveauté la te wax dëgg yàlla ñun ñëpp mën nañu nangu gis nañ ne que il y a des dérapages il y a des dérives au niveau des sociaux. dérives yooyu dérapage yooyu nag dañ ko a en charge dans le cadre de ces instruments juridiques internationaux yi nga xam ne posé na des restrictions. légal mais également dans le cadre des ne juge liberté d'expression moo xam ci réseaux sociaux nga koy defee moo xam ci télé moo xam ci warul mun a dem tey ba teggi war ma xaw ma war ma nit ki maanaam porter atteinte à la dignité de l'individu mhm. à sa réputation. lu ma jëlee ni saaga tey le cas de Assane Diouf ñu ngi koy mais li ñu gis. mënuñu ko méngale ak liberté d'expression koo xamee ne nii ni dafay taxaw ci télé ci réseaux sociaux yi vraiment di teg ay kàddu yu ñaaw ci deru autorités yi ci deru institution yi même ci ay autorités religieuses su naa ne loolu mënul méngoo ak liberté d'expression te instruments juridiques internationaux yi daf ko dàq mm-hmm. jurisprudence bi également daf ko dàq beneen bi mooy liberté d' expression mënul nekk liberté d' expression bu fekkee ne dafa dem bay indi insécurité ci réew wala muy nësaxal ordre public loolu également ay restriction légale la yu nga xam ne que ni eh, instruments juridiques internationaux yi ñoo ko tëgg mais ci jurisprudence bi dama la wax léegi ne la mhm. am na benn affaire boo xam ne nii ci Europe la xewee en deux mille dix huit te Cour européenne des droits de l'homme moom moo ko moo ko moom moo rendre décision yoo xam ne ni benn citoyen benn citoyen ci yonent bi mm-hmm. mais bi ñu demee ci cour euh, cour européenne des droits de l'homme mais la mu wax mooy moom dafa wax ne que euh, wax yow yu nga xam ne ko nit kooku yëkkati na ko teg ko ci deru yonent bi sallallahu alayhi wa mu mais mënuñu ko méngale ak liberté d' expression bi nga xam ne moom la déclaration universelle des droits de l'homme tënk ci article dixam mm-hmm. c' est à dire mënuñu ko méngale ak loolu parce que daf di lu nga xam ne que nii dafa jéggi dafa jéggi dayoo parce nekk nii am na ci wàllu diine te loolu cour européenne des droits de l'homme moom nee na mënu ko méngale ak liberté d'expression mhm. kon nga gis ne bu weesoo texte yi juge bi même même juge yi justice dafay limiter sax la liberté d'expression parce que dafa ko yem moo tax may wax ne il n'y a jamais de liberté d'expression absolue Il n'y a jamais de liberté absolue de façon globale, encore moins de liberté d'expression ou de liberté de réunion absolue. Même liberté de réunion yi la. Hmm. soo jëlee tey liberté de réunion liberté fondamentale la te ñu nekk nit ki su fekkee dafa bëgg a ñaxtu dafa bëgg a dox doxu ñaxtu maanaam la marche pacifique. waaye hmm. aussi il faut ñu préciser ko du def autorisation dafay def déclaration préalable mais même déclaration préalable boobu dafa boo bu fekkee ne def nga ko maanaam sañ-sañ bi ngay pour mën a marche loi toujours rek dañuy ñëwaat ci restriction yi parce que ordre public bi daf ciy intervenir euh, maanaam dispositif sécuritaire bi nga xam ne autorité administrative war na ko am également yooyu yëpp daf ciy intervenir mhm. donc mu mel ni restriction yooyu dafa ànd ak principe liberté d'expression ak liberté de de réunion donc kon ñun mun nañ jàpp ne exemple yi nga xam ne rapport bi joxe na ko mhm. am na ci yoo xam ne ni xëj na mën nañu ko mën nañ ko naw mais nag le cas particulier de Assane Diouf wax dëgg yàlla man jàpp ma ne tey méngoo na ak liberté d'expression bi nga xam ne boo demee ci article dix de la déclaration universelle des droits de l'homme am na fa mm-hmm. boo ñëwee ci suñ constitution également am na fa parce que daf di loo xamee ne que ni tey dafa jékki wax li nga gëm waaye dafa porté atteinte à la dignité à la réputation et à la dignité de personnalité et même de, euh, même ko méngale vraiment ak mm-hmm. liberté d'expression. maître euh, partenariat pour un gouvernement ouvert Sénégal bokk ci depuis 2018 tey mu génnaat dëggal ne ñoom euh, naam ñoo ngi ci biir waaye taxawuñu ngir ñu assurer égalité des sexes ndax loolu méngoo na yow mi défenseur des droits de l'homme waaw man damay wax ne euh, maanaam PGO boobu ñuy wax incroyable qu'un gouvernement humain engagement bi ci gouvernement Sénégal am xaw ma nag clause yëpp ci biir dama jàpp ne bu ñuy engagé wu ci mel noonu du rek engagement général la ñuy jël loolu moom jàpp naa ne moom wax dëgg lu ma gisul gisul aussi euh, clause yi nekk ci TGO boobu mm-hmm. xam naa ne réew am na sañ-sañ engagé ci ba pare na nag waaye lii ak li ak li jàpp naa ne man mënuma ci mënuma ci jël ay engagement mais li ñu mën a tënk rek wax rek ci ci fànn mooy ñu wax ne daal euh, Sénégal dafa am benn position bu mu am ci loolu. Mhm. contrairement nag ak yi ma dégg xëj na suma xarit suma naataango Seydi Gassama di ko wax du mbirum bundu xataal bi wala ci dóor di gaañu Sénégal euh, tey république du Sénégal état du Sénégal te moom moo am obligation aar citoyen sénégalais bu nekk ak ku mu mënti doon nag mu aar la. Mhm. mais jafe-jafe bi nga xam ne li nga xam ne moom la ñuy tuumaal Sénégal du loolu. ci ci affaire LGBT Sénégal dañ koy wax ne ko amoo tey ay loi xam ne ni da leen di protéger maanaam yow da nga am loi xam ne ni da di xañ seen àq ak yelleef da leen di bund xataal da di jàpp di leen tëj ci kaso yi effectivement suñu code pénal tey boo ñëwee les actes contre nature dañuy délit la suñu la ci jàppee dañ lay tëj ba juróomi atti kaso mën nañ la ci mm. loolu nag la yenn rapportu amnistie bu mel ni amnistie loolu lay ŋaañ parce que Sénégal dindi lu mel noonu maanaam mooy tey permettre à ce que góor ak góor mën a sëy jigéen ak jigéen mën a fey loolu nag defe naa ne wax dëgg yàlla bokkul ak suñu aada ak suñu cosaan bokkul ak suñu diine adapté wul moo tax man damay rejoindre position autorité sénégalaise parce que man jàpp naa ne universalité des droits de l'homme tekkiwul loolu hmm. loolu c'est plutôt l'uniformisation te nag uniformisation doonul principe droit de l'homme mooy maanaam la Europe la xew États-Unis nga bëgg ko ñëw rek indi ko appliqué ko Sénégal loolu defe naa ne xel fa mënu ko nangu souvent damay faral di joxe benn exemple ci wàllu universalité boobu ak uniformisation bi ñuy wa may wax ne tey Sénégal réew yu bari Sénégal bokk na ci Sénégal tey mën nga am ba ñeenti soxna mais boo demee ci réewu Europe yi wala réewu Amérique. Mhm. mais réew yu bari tey nanguwuñu nit ki am so lu ëpp benn soxna maanaam li ñu wax polygamie nanguwuñ ko la tax ñu bañ ko nag mooy dañ koo méngale ak seen réalité pourtant nañu nangul également ñun que tey mbirum góor jigéen góor ak góor sëy jigéen ak jigéen sëy. wala ñuy def loo xam ne ni xëy na dëppul ak loolu wul ak suñu cosaan ak suñu aada dëppul ak suñu diine. maître Pape Sène ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay sant bu baax Elisabeth.